ñëw ci Ngor. làmb ngi sëñ Bas. xale bi wane na ne oto boo ko bu rafet bu makkete boo ko indi. dugg seeg moom. ndeysaan. lii mooy làmb. xeeru Ngor a ngi noonu. xaadim lii mooy wane làmb amatul mbër mu ndaw. am bu mag léegi xale yëpp ay star lañ ci fi ñu dëkk. ñëpp ay mbër yu mag lan boo ñëwee Ngor lii nii gisoon naa foog bu Ngor mu def ko te tey mu ñëwaat gis xeeru Ngor mu def ko waaye Assane Ndiaye nag nii la mën a mel ndax moom mooy jinay promoteur yi tëgg cinq grands combats jël ñeenti mbër yu Yoff def leen ci jël drapeau Abdoulaye Diouf Sarr def ci ah lii lii cin bu neex ah su baxee day xeeñ. waaye ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk bi muy génn stade yi mujj amuñu fa ndam joxuñu leen ndam kii daa bind recours am ndam ci digganteem ak boo yëmbal ca euh, xale bee di Konia 2 ci ñaari defet la jóge ñu fas yéene laale ñoom ñaar ku ci nekk lan mooy avantage am ci làmb ji. combat yërmande la moom sax ci defet la jóge moom Boy Diop bi mu bëreeg boo yëmbal bëriwaat na ak Boy Diop. muy ñaari combat yoo xam ne ci defet la jóge. wala benn bi am na ndam par recours la bindee am ndam. waaw mais beneen bi daa am defet ci diggante Boy Diop stade Diop Iba Mar. Konia Do jóge ci ñaari defet Weur Jambaar da ko doon arène nationale mu ñëw arène nationale Ronaldinho daan ko ñu ñaar defet interdit mu nekk combat yërmande ku daanu laa yërëm ku daanu ku daanu. waaye ku daanu laa yërëm. nan la war a mën a ñëwaatee ci diggante Konia 2 ndax Konia dafa mel ni jàpp na ni day jéggi ci kaw kii rek jàll. ñoom ñaar ku fonkul sa adversaire daanu jël bu rëy ñoom ñaar ku respecté sa adversaire daanu kii njool la kii ndaama la ndaama nag yëgul njool njool yëgul ndaama. combat bu a métti. ndaama. man ndaama la. ndaamal la ndaamal la. yaa ngi bas ku sut. maa ko sut. ndaamal màcc la maa ko la. man la mais Assane Ndiaye daf may décorer. sama xarit la le seize. baal ñun lay décorer kon. waaw ku ma defal lu baax defal na la ko yow sama xarit nga. loolu moom dëgg la. Assane Ndiaye sama waay la. waaw dinoo seq ay relation yu mu nekk nit ku baax yéene ma. Ah. di wax defal lii ah. nit mën fay nit lu ne ba mu des ki la yëg. ki la yëg mënu ma koo fay. Assane Ndiaye mënu ma koo fay maa ngay sant di ko gërëm di ko ñaanal lépp lu mu bëgg yàlla ko yàlla defal. mu dem baraw promoteur yëpp. moom ak jàmm kan noo ci roi a Mar. Assane Ndiaye mooy roi. <laughs> waaw. ndeysaan xale baa ngi ndeysaan ma ngay waaj a wàcc ci oto bi moom xeeru ngor xorom bi bari na de xor bi xorom na de tànk ndi joor waaye tànk bi ba léegi laalagul suuf ñaari tànk yëpp da koo téedal xale la boo xamante ne fi mu toll nii waa Ngor jik ñu ngi koy déglu yaakaar ko Ngor wàcce na ñaari tànk waaye benn laalagul suuf ndeysaan ma nga musaar musóor bopp bi rouge blanc wala orange blanc ma nga noonu am na butéel bu ñu koy jox laal na ko ci loxo ba diw na ci kanam gi laalaat na ci loxo bi ndeysaan laalaat na ci loxo ba laal na ko ci loxo bi laal ci omi tey làmb làmb garaaw làmb dafa garaaw am na siwo bu ñu koy jox dugal na loxoom ci siwo bi sëlmu na ci ndox mi dugalaat na sëlmu na ñaari loxo yi lay dugal sëlmuwaat na day def ñetti yoon ndeysaan butéel ba nu muy def ndeysaan ma ngay xool hey Assane Ndiaye ndeysaan soow la ñaan na ci soow mi da koy saraxe kum koy jox yor na soow ma tufli na ma ngay xool kum koy jox ndeysaan ma ngay joxe lépp tegtal la dem na wàcc na ci bi Xeeru Ngor na nee na heure bi jot na dama koy rendi cey lam ma nga noonu mbër la yor na taay bi yor na gabari bi am na sañ-sañ bi te bëre baa ngi ci moom moom Xeeru Ngor ah am na Xeeru Ngor dee na day rendi kon problème yaa ngi doog a démarré ah. ndeysaan ndeysaan Xeeru Ngor a ngoog mbégte ñëw fii ci Ngor seet si fi xale bi nga xamante ni champion la muy xeeru Ngor numéro 2 mu jëm ci bis bu rëy jëm ci bis bu mag digganteem ak Koña numéro 2. Koña nekk xale boo xamante ni ndaanaan la ci làmb moom mii mu nekk ndaanaan ci làmb ki ko tëgg di le roi de Iba Mar muy Assane Ndiaye Baol production ñu war a fas yéene bëre le 16 janvier bi ñu jëm. Xeeru Ngor def na signature contrat wax ak kooña wax waxloo xas-xasloo ba bis bi yegsi na looy bañ mu jàpp bul ko jàppal bis looy bañ mu am bul ko jàppal bis nan nga waajee combat bi ak lan nga fas yéene dénk xe euh, kooña mi nga war a laaleel ak waa tund ngor gi nga xamante ne ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi lay nuyu waaw a aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri lii am li wax waxru uqdatan min lisaani yafqahu qawli jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jël Baye Niass balaa may wax dara damay jaale sama bopp di jaale waa Ngor gépp Arouna sàmba mi nga xamante ne sama frère la woon sama lépp la woon mosuma xewle te taxawul sama ginnaaw tey yàlla moom ko ma koy ñaanal yàlla yal ko yàlla xaare aljanay firdawsi amiin yaa rabbal waaw di nuyu waa Ngor gépp di leen wax ne le 16 yàggatul la géant di cap dafa am nu mu war a taxawee te incha allah dinañ ci taxaw bu wér. da ngay bëree xale boo xamante ne ñëpp duñ naa tabale mën a bëreem. Euh, mu doon champion chef de l'état del ay riaaye bu ne li traditionnel bi ñu di ko gis muy wane boppam nga ñëw ba stade Iba sax mu ne la yow mënoo bëre dalay jàngal bëre yanu ba ci kaw dóor ci suuf xanaa loolu moom doo ko seetaan. bu soobee yàlla dinaa ko daan bu soobee yàlla. di nga daan kan dinaa daan Koña 2. mu ngi lay xool. bu soobee yàlla Koña 2 dinaa la daan bu la neexee dinaa la daan bu la naqaree dinaa la daan. bëri naa combat bu nekk sama carrière combat bi mooy sama quatorzième combat sama carrière mais taxawaay bi waa Ngor am ci combat bi mosuñu ko am ci combat. parce que dafa am fuñ jëm yow ñoo ngi fi ëppoon président fi jaar yëpp ñoo ngi fi bési fi jaar yëpp ñu am si dynamique buñ nekk gars yi di liggéey lu metti soo ma xoolee boobu ba léegi xam ne maa ngi liggéey te bu jour ba ku ëpp lu mu liggéey ëpp doole ëpp fit ëpp sañ-sañ gën a pare yaa na ko yàlla may ndam. nee na la dàq bëre. moo la dàq xeex moo la ëppi mbokk moo la ëppi ginnaaw sax ci bëri. waaw loolu bu arbitre sifflé dina leer nit ki boo ko dàqee bëri bu arbitre sifflé wan ko ne yaa ko dàq bëri si bëri bi muy wax ne moo ko dàq dinaa ko si daan ngeen seen gémmañ yéen ñëpp. wallahi bëre boobu muy wax ne moo siy favori gars yi naan moo siy favori bu ñëwee bëre ma daan ko si bëre ba ñëpp waaru. billaahi wallaahi tallaahi aw ma lu ma ciy daw. non non moom bu ko neexee mu dem sa drapeau de l'État président taawul ne lamb ji bari na champion yoo xamante ne demuñu sax Dakaaru gi te toj nañ lamb ji yàlla mooy may ku nekk mais bu soobee yàlla le 16 incha allahu rabbi koo ñaata dinaa ko daan. nee na Iba Mar de xam na ko ndax yanu ba ci kaw dóor ci suuf moo ko moom sit boo dem di nga fa gis yanu Konia 2 ba ci kaw dóor ci suuf. waaw ak ñi muy bëreel ñi mu doon yenu ak ñi mu doon bëreel sax di leen daan du géant bi de kii géant bi la. yee c'est le géant du Cap-Vert am bigiliyu luy loolu dama am doole. yow mi barke alxuraanu karim dama am doole. yaa kooñaa kopp doole. wallaahi dama am doole. yaa kooñaa kopp doole. bu jour ba nga xam dama am doole. yaa kooñaa kopp doole. xam nga dama am doole mooy lan. moom gisuma dooleem parce que mënu ma koo gis. bu ñu taxawee max moom nii. ñu taxaw mu dem Eomar ma dem Eomar ñu posé wu su may bëre du fa bëre. man su ma duggoon Eomar catégorie bu muy bëre du mu fa bëre. yow poids lourd la. yaa ko wax de man géant laa doo dégg la di Cap maa ngi koy dégg maa ngi nii. laxatuma de. barki alxuraan. ngeen jëm ban wàll mobilisation ngeen ci toll ndax xam ngeen ne promoteur bi tëgg bis bi dafa soxla mbooloo mu bari wuy si la te lii ma gis ngor est-ce que dinañ dem eh, stade. ku ne xam na billet yi li muy jar. 3000 la. waaw ku jël 5 bolok lu muy waaj. te fe 5 bolok yëpp dinañ ñëw. dama ne la ku jël 5 bolok lan lay waaj. mobilisation bu rëy. 5 bolok yi matul. damay wax autorité ngor yi ñun li nekk suñu ginnaaw ñu ko drainer amuñu doole bi yee yàlla toon nañu benn affaire bu ñu génnee ñëpp génn ñun amuñu lu ñu autorité ngor yi am amuñu lu ñu waa ngor nañu waa ngor taxaw ngir yàlla ak yonente bi ñun ñuy taxaw de mais lu ñu taxaw doyul parce que dañu am fu ñu bëgg a yóbbu couleur ngor ci làmb te bu soobee yàlla dañ ko fay yóbbu yee ku ñëwoon ngor ay jamono ci ginnaaw ñëwaat fii tey di nga xam ne làmb mu ngi yee te dund boobu noonu dafa am ñu teg seen loxo ba tax mu yegg foofu te am na fu ñu ko bëgg a yóbbu fexe roi des arènes bi ñëwul duñ bàyyi par force. jaajëf xeeru maa lay nuyu di la siyaar bu baax dañu gis bi nga jógee sa combat ak Boy Diop ñu dalal leen wasaare làmb yow ak Kogna 2 au début da ko doon minimiser lan moo tax nga jël combat bi. non minimiser wu ma ko xam tamit làmb dafa am yoon bu dee ne rek lañuy ñuy wax mënoon na am ku gën Kogna ngeen ne mënoon naa am ku gëm Kogna 2 parce que palmarès bokkul adversaire bëreel bokkul ku ak sa bàmmeel mais dama fi nekk pour làmb nekk fi pour liggéey man liggéey ma loolu làmb su bëreewul damay perte chaque année damay bëre ñaar yoon donc suñu ma ko joxee fay ma lu ma jaral mu doon suma adversaire ma war a mën a bëreeg moom làmb boole ñu damay bëreeg moom xool leneen parce dama ko fës keneen daan daanaat keneen daanaat keneen balaa su ma est-ce que tamit combat bi nekkul risque parce que yaa ngi jóge ci ñaari combat Boy Diop ak Boy Yëmbal moom mu jóge ci Weus Jàmbaar ak Ronaldinho yéen ñaar est-ce que combat bi ku daanu ak làmbam du sànku. man sama làmb mënut a man làmb dama see bokk yee dama si def loo xamante ne ak lu métti métti rek làmb damay bàyyi xel yee su ma yemale woon fii sama carrière dinañ ne Xeeru defoon na fi nangam du dañ yee combat rek te incha allahu rabbi day muñ Boña 2 day muñ Modou Anta li mu wax mooy defet arrangé wul yéen ñaari mbër yëpp ndax ku ci nekk ñaari combat yu mujj arbitre yëkkatiwul loxoom man damay daan incha allah incha allahu rabbi dama koy daan si kattanu yàlla dinaa ko daan bu gaawee bu ñëwee bëri dëggal boppam mu gaaw su yéexee ma duma ko ba mu génn saako dama ci dégg benn surprise boo xam ne dinaa la ko wax pour sa supporter ñi nga xamante bi nii ñime nañ kaaw Paate Gambia ak Baye Jili Tarkina nee nañ pare nañ pour kaaw cent mille francs ci combat bi. supporter balaa ñuy kaaw ñoom ñooñu nañ génne seen xaalis bu ñu tegee un million ma teg un million amuñu xaalis ñoom ñooñu amuñu xaalis luñ bëggee bu ñëwee si làmb ji yéen yéen a ngi fa luñ génnee teg ko taawul bi kaaw ma teg ko kaaw waaw. wooteel say mbokk. waaw di di woowaat su may mbokk rek bu ma ne su may mbokk génnuma Cap-Vert su ma ne génnuma Cap-Vert mooy tànk Ngor Wakaam Yoof amuñu loolu ñoom te combat bi dafa doon combat boo xamante ne gars yi ñu ngi koy waaj ak doole te parce que bu ngeen gisee open press bi ni mu demee rek ngeen xam ne am na ñoo xamante ne maanaam ñu ngi sonn ci bés bi am lu mu leen jaral comprendre nga di woo ku si mel ni Amadou Gueye Ati ah le maire sortant de Ngor xam nga maa ngi koy woo le lion noir na si jàpp am na lu mu waxante ñun te lu mu mas a wax ak ñun def ko mais combat bi dañ ko siy woo bu baax a baax a baax parce que dafa am luñ ci bëgg xam di woo Antou Gueye Samba xam di ko wax na ñëw jàpp si bés bi bu si jàppee da si war a jàpp bu si jàppul da si war a jàpp di woo ñëpp ñi nga xamante ne ngor la ñu nekk moo xam nga déposé candidature moo xam nga bañ ko déposé parce que ñun on est là pour ngor te ñoom ñëpp ngor moo leen tax a jóg te ñun couleur ngor la ñuy kon na ñëw jàppale ñu te yàlla tax di di gërëm koo xamante ne sama papa la sama lépp la muy docteur ñaa borom suma assistance parce gisee envoyé na ma benn ambulance li may defal mënu ma ko wax wallahi même bu dul làmb weer day dee mu envoyé ma xaalis di ma may xaalis te defalu ma ko dara maa ngi koy sant di ko gërëm li mu def si combat bi mënu ma taxaw di ko wax wallahi al azim maa ngi koy sant di ko gërëm di woo sama ndiyaay Karim Ndiaye borom black and white di woo Baye Boris borom la ngor yaatu na ak la ngor timis xam di woo sama ndiyaay Tra borom noflaay bits na ñëw jàpp ci bu baax a baax Omar Sey borom rib kër ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp ci bu baax a baax baax di woo suñu grand frère muy Maro Youssoupha Mbengue international sénégalais ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp si bés bu baax baax baax di woo grand yi ngor yëpp amul exception secteur yi nekk ngor yëpp maa leen di woo di woo booy ngor yëpp booy maa leen di woo waaw di woo grand yi nga xamante ne dañu sonn ci man muy waa xitma bi aw ma seen fay di leen wax ne bés bi seen bés la ndam li seen ndam la incha allah waaw kooñaata li ma koy mujjee wax mooy li ma lay mujjee wax mooy ba bu ngir yàlla yonent bi rek ñëwul stade nga dugg ci géew bi li des dinaa ko réglé. ñëw moom dina ko def ndax daa signé contrat waxal leneen. na ñëw rek man bu ñëwee rek xel dal na li des garaawul. bu jeexee bu xeexee. ambulance ambulance yi yóbbu ko indi naa dinaa indaale ambulance. dina ñun ku ñu xam-xam ne supporter lañ xam neexal feesal stade bi yëngal dox suñu dox di waa booy yëpp booy waa taxaw dëgër garage bi tarkindaay na ñëpp taxaw dëgër borom moto yi convoi bi na ñëpp taxaw dëgër ñu teel a génn teel a dem di wax mention spéciale sama gars yi sama criminel les première cadavres ak waa dof dofati aw ma seen fay xam nga di wax jox ñëpp rendez-vous le 16 di wax ne gan gi bu bëree daanu bu xeexee daanu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf